mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci bi di Queen Biz mi nga xamante ni jël na ab dogal nara daal di dakkal way bi nga xamante ni moom la ko ñëpp xamee woon fii ci réewum Sénégal Queen Biz borom buzz xamle ne ni nar na daal di dakkal way boobu lay xibaar mu ngi ko xamale ci page Facebook am li leen nag nekk ab décision boo xamante ni bett na ñu bëri ci Sénégal yi rawatina ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ay fansam doon ko bégee moom Queen Biz nag la tax mu jël décision daal di bàyyi bi di def kimtulay kattanam ngir bégal sénégalais yi rawatina ñi koy safoo waaye nag boobaak léegi amu ci benn yoon lu ko neex ndax soxor rek la ko nit ñi wan ak mépris moom Queen Biz nag nee na naam sax critique yi bëri woon na ak méchanceté bi waaye def na kimtulay kattanam ngir surmonter situation yi waaye nag dafa jàpp ni muñ goo gis daa am famille yam moo tax nag mu dal di jël décision bi dakkal musique nee na nag bile décision xalaat na ko xalaataat ko bu baax laata mu koy jël Queen Biz nag nee na mu ngi jéglu fansam yi bu bu baax a baax te di leen delloo njëkkal ci njàppandal gi nga xamante ni jàppale nañ ko ko durant toute sa carrière beneen mbir boo xamante ni waykatu Parcelles Assainies bi xamle na ko nee na sax dina daal di retirer clip bi nga xamante ni moom la mujjee def di wóoru la woon ko ci chaîne YouTube am dina la Queen Biz nag xamle na ni dina daal di jublu ci yeneen horizon bu bàyyee musique bi ndax am na ay projet yoo xamante ni taxawal na ko dans le futur xanaa rek ñu koy ñaanal bon